Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activer walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage Ibrahima wax nga dëgg gis nga euh, maire bi bañoon na joor bi mu xamee ne Mariama Pape Birahim dafa doon bëgg waaye mbañeel li boobu mi ngi ko doon jéem a nëbbu fësalu ko woon ba benn mama joor demoon na si néegam di ko ko laaj mu ne ko ndox dama laa woon ñàkk kersa xam nga fi la ko jànnee ne ko génnal dama bëgg nelaw waaye depuis bi maa joor signé ak joor. monogame bi ba léegi moom nëbbatul mbañeel gi daka fisal ci la taxaw carrément ne ko moom bëggatuma dégg sama tur ci salaam làmmiñ boobu moom moo gën a indi piir bi ndax bañoon na ko waaye doon na ko nëbb waaye depuis boobu maajoo saña ba léegi daal moom ci la fisal mbañeel gi carrément moom nëbbatu ci dara waaw en tout cas soxna Soda waaw loolu la xam naa fokkaare ñoo baroon moo tax loolu la koy mais en daal lu may wax moy rama job mooy daa war xam carrément mo da waro na bolu tok palaasu gro xam am cër bu mu wara am mais bu fekkante ni gaan day def nako ko ya, def lu ko neex non non kon moy lolu waaw kon nak sama gaay jama xewal xamna moy lolu dal da melni gaay bi dañu xawa daw tuti quoi yalla jàmm yag rek bi jara rasulullah kewe lu mu wara xam moy mom ak papam ño ño gëna yag Dior ak Papam parce que Dior yàggul mu xamee Papam n'est-ce pas te Kéwel nag fa la dëkkoon lan moo tax mu génn kër gi lan moo tax mu muy muy wax Papam ay wax yoo xamante ni du wax wax yaam kàddu wax wax yaam cër n'est-ce pas moom dama war a xam carrément magam la déjà lu ko génnee kër Papam mooy ñëw jaayante ak joor si kër gi xatal ko foofu. bu ñu waxtaan ko si boo ñëw bokk ak ñii dafa foofu coalition ànd xeex joor loolu moom loolu moom loolu moom du ci ram moo tax war a ñëw kay dimbale joor en tant que mag mais ñëw di jéem a sóoru sa mag di ko jéem a xeex ay jëkkër bàyyi foofu rek bi lu ma baax na non gis nga kéwee dafa xamal lu muy def loolu moo tax parce que moom maa xalaat loolu ne bàyyam day gënale day faral joor bu dee ñeneen ñi la danga la wax ma ne bu dee ñeneen ñi la dina ko jaral mu perte jour mais bu dee moom la bu dee ñeneen ñi la di yuuxu rek c'est vrai parce que ku nekk ak cër bi nga jox say waajur boo joxee say waajur cër rek après dina respecté quoi mais yéen muy loolu. naa ni mu kenn daa mën a jël place naa bàyyiwul de naa musul bàyyi daa fekk kay dafa leerlu rek ki mu lay nax dee na wala dee loolu xamu ko. loolu ko oram isaan am na keesa jàkkaarloo ñoom Pape Birame waaye pour naa jóg wuyu bi Musa del si naa naa daa bànni ba pare loolu ma sax ñu say ñëwee mu baalu naa dafa bànni de naa dafa kàppaaba ak xamee nag alal ji nag seen alal la foofu la mooy wax jaay jaay ci ko ceeb de Aku kaget modin da ke gobe kazin lisani limka da fiye da music kardiyo da da music musik jor aka fes kolasam ita jor boko hore han kan ngay gis garmi garmi ya kese la am ma xamal ko yaayam da kala wax yow sa jikkoy baale nga joxe yor ku ko moom mooy problème bi damay xalaat bu doon jubboon ak Dior sax bu demoon ba yëg loolu ni yaayam déwut mu merewaati wala mu jël palaasu naar rek li naar nekke mu nekke ko moom waaye nag moom loolu yëpp seetu ci daara gisoo doomam jooju doomu ba Ibrahima jooju mu dàq nga xam ne moo ko war a def doomam war koo téye war ko toppatoo mu koy toroxal te moom normalement moo war jéem a nekk yaayam taxaw ko waaw jàppe ko comme doomam mais gis nga ni ko def toroxal ko. yàlla na sa moo tax mu tiit loolu mu bëgg a waaye man duma gis sama deret di jël beneen doomu jàmbur di ko teg sama doom pour la joor doomam la parce que bàjjan bàyyi tey jii joor bu sëyi woon ci maajoor mën naa ne joor tondoom mu sëy si parce que moom moom bañ na joor bañ na joor bañ ñu ngi leen ziar bu baax soxna Xadi gis nga bu fekkante ni Euh, man li ma koy diggal mooy bu dee doomu Pa Ibrahima dañoo foofu wala ñëw déedéet pour man warul ñëw dèjà moom mu ngi kër fi nga xamante ni am na fa jàmm ak salaam na fa nekk rek nest moom mu ngi mu ngi kër mama Banel na fa nekk bu ñëwee kër Pa Ibrahima am na fa am na fa fa euh, cër bu fa am na fa cër kon nag moom ñëw ñëwoom ak ñekk ñëwoom ñooy benn la bu ñëwee sax. day métti si moom parce que su boobaa Rama a andi encore si beneen guerre bi nga xamante ni après du a fay quoi waaw na fa nekk rek moom daal na xam ne moo xam mu gérer ba ma sax comprendre parce que moom bañ na joor de mais bëgg na tamit Fanta Diallo dugg ci maajoor man lool moo a jaaxal moom su may xool lim diggante woon ak ñeete def ko loolu tamit daf ko def sot moo yokk daal mu gën a joor xaw ma nu mu demee mom bañ mbokkam bëgg bëgg ñoo xamanteni ni man dal té yow xolu doomam xamul fan la tollu en tout cas man jaru bax bu soxna Soda maa ngi jaru bax man baax ngi jégalu de maa ngi sa vocal ci kaw quoi man ngi bu baax ba ci yàq ya, tontu maa ko si gis nga eh, Rama Diop lu mu war xam moy mënul gérer sa yam bu pare di gérer encore si sey jàmbur mom na yem palaasu goro wala palaasu yaay wala palaasu bajjen ñi téral ko. su bëggee am teraanga bu bu mag na yem place am bu bu yem place am rek après moom mën na am teraanga mais en tant que mu ngi mel ni ku ñu tuur ndox bu tàng doo am cër si kër gi moom instant bi lu ko waroon mooy yeewu sangu julli sangu jàpp julli toog jaamu yàlla yooyu kurusam am nay goro am nay doom si kër gi moom instant bi warul warul def dara lu loolu bu buñ toggee mu lekk mu naan ndox jàpp ñaamuram saa yi moom loolu la waroon def. waaw soxna Khady Sall jaar naa la bu baax encore gis nga dégg neexul de mais encore aussi tonton Birahim moom tamit dafa bari trop ay toj-toj foo dem am na li nga xamante ne buñ ko waxee day def scandale bu rëy tonton Birahim moom tamit dafa bari trop ay ay ay jaar-jaar moom bu fekkoonte ni Mariama dafa dee carrément. di di doon am cofeel digganteem ak Banel loolu koy wóor na ma parce que Mariama ak Banel benn la dèjà boo gisee Rama Diop xelam toogul dafa jàpp ne ni instant bi tonton Birame ak maman baneel dañoo nekk di dundu mbëggeel loolu la téye parce que xam na ni tonton Birame di yenn yi nag tonton Birame moo tax Rama Diop di dugg ci àll bi parce que bu xam na ko bu baax toogul moo tax yemul. lu ma lu lu xam nak ci tonton Birahim moo tax pour man yenn yi tamit diko diko arrivé nonu comme ça. waaw sen Cheikh jar la encore ci mbaa lépp jàmm waaw en tout cas Rama Diop daal instant bi nekul ki nga xamanteni royu kay la dedet te kilifa te da nga wara don ki nga xamanteni dañuy roy ci yow instant bi mom waron mom mel melokaan bi nga xamanteni jor dina roy ci mom ak wa kër gi yeb mais instant bi mom bu rek. gaay gaay kon seen seen jub day day jafe parce que boo xoolee moom moo dugal Fanta Diallo si lu mu nekk bu Fanta Diallo saa bi génn kër gi parce que moom moo sant Fanta Diallo Fanta Diallo liggéey bi nga xamante ni mënu ko yaa ngi gis Fanta Diallo léegi na ko jàpp na ko mbéj na ko mbéj boo xamante ni moom du ko fàtte mook dèjà noppi noppi noppi yaa ngi réer ba tax mu génn kër gi maintenant bu dooma nekkoon joor ñaari mbéj laa koy mbéj dama mbéj fii mbéj fële su boobaa su boobaa bu gënoon kër gi de day day gën a amaat métit moom moo tax loolu kon naa Rama Diop moo waroon a changé jox jëkkëram cër dèjà moom joxul jëkkëram cër bu waxee rek tontu comme ça. en tout cas daal daa war a téye bu baax seen seex gis nga Rama daa war a téye ànd ak xelam xam ne carrément affaire sëyul mbëggeel mooy sëy loolu la war a xam mais ay doo fii ay yow sa alal nga war a bëgg jox joore ay yoon noonu loolu doxul de loolu bokkul ci sëy Dole mu je.